mbokkeek xarit téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu ngi leen di bëggee di leen ziar di kontaan bu baax a baax ci seen ànd ak ñun saay su nekk ci euh, télévision bi nga xam ne moom moo di Yegle TV yéen ñu taamu ba noppi itam saxoo di ànd ak ñun ci suñu ay programme lépp loo xamante ni wàllu information la ci wàllu people ci wàllu culture ci wàllu politique ñoo leen koy jox ndax fii ngeen koy amee à temps réel. alors ci plateau bi nga xam ne moo di cey euh, lii ñu koy euh, faral di amal saa su nekk dinañ ci euh, accompagner tey nag ñu ànd ci ak sunu ñaari jigéen yoo xamante ni macha allah ñu xuus ak yéen ci thème bi nga xam ne dinañ leen ko jagleel bu ci kanamee léegi alors Bintu maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax baax di la bàyyi nga nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi. man baax ci seen plateau Thieyli di leen jox seen wàccuwaay bu baax mhm. sa greffage baax na de bii petite tête la ah <laughs> wala grande tête. <laughs> <laughs> très bien. alors euh, maa ngi lay euh, béggee bu baax a baax kii moom xamante nañ bu baax a baax maak moom bokk nañu fu nekk ah ñun ñaar bokk nañu dem Màkka. ah bokku ñu dem dubai ah suñu ñaari ndigi sax ñoo dendi won biñu nekké makka man ak mom aja ah bon ma ngi ni rek dama bañu def yaram mu neen rek comme d'habitude ah alors deug la di la jaajeufal bu baaxa baax di jaajeufal sama natongo bi de di jaajëfal aussi euh, beaucoup internet yi ñuy seetaan. Mhm. alors euh, jërëjëf Fifi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, naka noonu Bintu ak téléspectateur internet yi nga xam ne ñu ngi suivre de partout dans le monde ci Yegle TV alors on campe le décorant, na am ñaari mbir yoo xam ne mu la ñu fas yéene waxtaan ak suñu mbokk internet yi mhm. bi ci njëkk mbir bu bu doy waar la. bi ci teg itam dinañ ci ñëw bu ci kanamee léegi mais ci bu njëkk bi ci la ñuy ak sunu mbokk yi maanaam. Euh, où va le Sénégal tay bu ñu ci bataille bu melni manam maanaam walum homosexualité ñu ne paré gu ñu déetewaay ñu gis manam benen fait bo xamanteni manam nit mënu ko imaginer euh, ci ñaawteef nit mënu ko imaginer ci dëkk bo xamanteni ni la Serigne Bamba teud fii la El Hadj Malick Boukounta ak yeneen ni euh, kilifa yo xamanteni ni ñu màgg lañu fii la ñu tëdd ñu dégg fi euh ñaari goor yo xamné ñu ngi séx ñu ne déete koy defee sax ci foo xamante ni maanaam jumaa la euh, ban interprétation bu njëkk nga ci am fifi man des fois dama naan si mujjub jamono lay nekk. Mhm. ndax li li toll ni jumaa wala jàkk. Mhm. nit ñu baax na fa jaamoo mhm. jamono lay nekk. mais dama jàpp ne aussi ñooñu kese siiw ah bon.

mën naa ne jour match bi bu ñu leen fekk woon foofu. Mhm. duñu mës a xam ne. Mhm. ñii ñu woon si jumaa ji. Mhm. donc loolu rek la. dafa am ñu fës am ñu làkk. bu fekkoon nag tey jii affaire yëpp fës na bu boobaa mën nañoo jël góor jigéen ñëpp seppi leen. mais tey jii yow di nga dëkk ak nit jour mu ay xaritu góoram. après nga foog ne ñii ay gaynam te ay góor jigéen lañ sa biir kër. mais doo ko xam. d'accord tey jii su fekkoon xam nga ko sax mën nga leen dem dénoncer mais doo xam. te en plus góor jigéen bu njëkk ba bu ko daan gis da xam ne kii góor jigéen la. maanaam ci comportement am ci waxinam. Mhm. Mhm. mais léegi mën naa dañoo évolué. Mhm. <laughs> <laughs> dañoo dox mu mu ngi jamono daal. ok dañuy sol solu góor. di wax waxu góor. mais au fond boo gëstoo di nga xam ne ñii. ay góor jigéen.

waa euh, assemblée nationale nanguñu woon ko signé donc elle a été rejetée. Mhm. Euh, muy muy loi mhm. mais ñoom ñoo ngi ci xeex mais mais mbirum homosexualité dafa nekk loo xamante ni dafa dafa sensible. Mhm. et aussi ça interpelle la responsabilité individuelle. ku ci nekk yow yaa xam fi nga bëgg a jëm ak fi nga nekk si tànk. li fi wax rek léegi homosexuels yi on va dire que dañu évoluer. parce que bu njëkk ba boo gisaan. homosexuel da nga naan ko da nga xam ne kii ñii mhm. loolu la mhm. mais léegi dañuy am ay soxna am ay doom am ay mhm. responsabilité xamante ne loolu benn mbubb la bu ñuy dëppoo bu ko defee tay ji boo taxawoon ñu fi nekk homosexuel tey ñu leen am na ñoo xamante ne boo leen tuddee tey da ngay taf sa gémmiñ ne noonu mun nekk mais dañ fi am doole lool lool lool li tax lii yëpp ñu sañ ko def dañ fi am doole te loolu nag mooy li ma wax rek faaw état taxaw si. Mhm. Mhm. parce que bu même bu nekkente ne état taxaw na si on on tant soit peu dina fi xaw a dinañu xaw a ragalee. Mhm. tuuti xel parce que ay lobby mën nañu euh, taxaw. ñoo ñoo ñoo leen di. accompagner ñu leen accompagner. ñu jox xaalis bu te boo xoolee koo xam ñaar ñi ñu jàpp tey kenn ki 35 ans la am nekk maître coranique de surcroît. donc kooku da lay leen ne mooy li ma wax rek euh, ci kanam société bi c'est quelqu'un de bien. ba pare nekk ku jàng koo xam dafa jàngalaate alxuraan. Mm-hmm. pare tel que ne ci jumaa ji la amoon nekk dafa doon recevoir xale yi muy jàngal ay élèves mm-hmm. donc xale yooyu tam tey waroon nañ leen a xool. Mm-hmm. parce que wóorul jamono bi de kenn jartu wóorul. ba xam nu mu leen doon jàngal exactement waaye. ba xam la leen doon jàngal ba xam tamit.

Euh, président Macky Sall mu wax né pare guñu pour daganal ko fi mais ñuy gis ñu diko pratiquer de façon extraordinaire au Sénégal est-ce que il y a pas un paradoxe par rapport ak ñaari fee yooyu. bon je pense oui parce que bien bientôt sànq fi mu doon waxé rek la ñew mhm. da ngay gis góor jigéen boo nga xamanté ne dafa am jabar. Mhm. am ay doom te am naa su ko am kaa boo nga xamante ne noonu la mel. Mhm. kooku góor jigéen mu ngi nekk soxnaam yor ay doomam. soxna mi dafa amoon ay benn xaritam boo nga xamante ne.

Mhm. alors euh, euh, euh, Binette est-ce que aujourd'hui que li nga est-ce que vous as bi warul nekk Mme ci surtout Mme, Sénégal nous sommes jël le en charge parce que itam vous gis mhm. ça pose problème est-ce que itam waruñu waruñu parce que nous ci

man damay rejoindre Fifi mhm. je ne pense pas que ne euh, euh, mbirum homosexualité mën na ko jóge mhm. parce que ci yeneen réew yi dañ ci am euh, ay ay ay ay ay ay droit mhm. dañ fa am ay droit mais droit yooyu est-ce que yaakaar nga ni mën nañ ko am ici au Sénégal doole boobu mën nañ ko am ici au Sénégal parce que le président a été clair hein il a été clair mais très clair le président toogaayam fii mën nañ ne wuyu wuyu léegi say amaana mu dem may keneen mu ñëw te président mu ngi ko wax mais terewul mu fi am ba léegi. Mhm. donc est-ce que homosexualité mën nañu ko fi jëlee te dafa gën a siiw léegi. dafa gën a bari. Mhm. dañ ko gën a mais ñun balaa ñuy judd amaana am na mhm. te ba léegi moo fi te gën naa ne que ne ñaanu ma ko yàlla mais ça va continuer parce que. li ma wax rek xale yi léegi bëgg nañu xaalis te nangu ñu sonn ba pare gis yeneen réew di ko def. ñu leen di copier te léegi même si yeneen réew yi góor ñi ñii sëy ak seen i moroomu góor defatuñ euh, maanaam. defatuñ ñi fi jigéen. Mhm. dañuy nekk ay góor dañ nga gis ay artistes yu mag yoo xam ne si yeneen réew yi. Mhm. ay américain yooyu mais dañuy saf góor. niru la góor euh, au vrai mhm. fekk na ne ñoo ngi am seen compagnon de même que tamit jigéen nga xam ne dañuy sëy ak seeni i moroom jigéen. dañuy def li nga xamante ne noonu la leen yàlla bindee terewul ñoo ngi am ay compagnon yoo xamante ne di def ay acte contre nature. loo xamante ne lu ñaaw la te nañ ci gën a taxaw di gën a waxtaan ak njaboot gi gën a xam ne tamit. Euh, dafa am homosexualité boo koy dégg ça ça ça sonne mal à l'entendement mhm. mais dafa am te luñ ci wax rek am cas comme li fi fi wax mhm. gis ci cas bu similaire bu mel noonu kooku meilleur amee copain mhm. te mu présenté ko jabar ci ki tamit keroog maa ko liir benn jigéen femme la mu def mais moom nee mag la je pense ñaareel mais euh, moom daal dafa dem ba xàmmeetul jëkkër ji mhm. muy fouillé di fouillé yaakaar ko sax infidélité dem di fouillé si téléphone jëkkër ji di fouillé nekk di jëkkër ji homosexuel la te mhm. dañu nee na am na benn application boo xamante ne euh, loolu donc mhm. moom moo ko tax a jóg ba mu téléchargé application su téléphone am nekk di c'est pour que euh, euh, ñoom homosexuel ñuy mën di waxtaan seen biir di mën di échanger librement di am ay ay rendez-vous c'est grave waaye Fifi selon vous lan moo war a nekk par exemple taxawaayu sénégalais yi dans tout ça hein, parce que itam bu fekkante woon comme ni nga ko waxee léegi ci mbedd mi la garaawul mais ci ci ci jàkk wala ci ci juma là ça devient autre chose. euh comme ni Bintu wax. bu njëkk ba boo nee pour pour nga dégg ñu ne la diw borom ñaari tur yi la sax. Mhm. c'est tout un problème parce que dañ doon làq. mais légui am nañ doole am be doole bo nga xamante ne man mën nañ top di waxtaan mu romb ni ñuy dem yoon. Mhm. man Bintu dañ naan kii de borom ñaari tur yi la. Mhm. du def dara parce que dañu dem ba ba suñu biir lañ mhm. donc pour ñu fi homosexualité du mhm. d' du mhm. euh, maintenant ñi nga xam ne euh, euh, en tout cas. ñu ci ci on a vu récemment sëñ ñu koy ñaanal mu fi wër ci également bi wax mais est-ce que nous itam laajul ñu defaat sorti ci ci presse yi askan yu dégg leen sénégalais yi dégg leen parce que lii euh, ça interpelle directement côté religieux. oui suñu sëriñ si yàgg nañu génn di wax. Mm-hmm. c'est pas la première fois ñuy génn pour pour di wax ci mbirum borom ñaari tur mm-hmm. mais ñoom amuñu sëriñ amuñu kilifa. Mm-hmm. képp ku mënti wax ci kaw suuf duñ la dégg. yow yàlla dundee la góor nga mel ni nga war a mel. nga dem jël sa mhm. man dama jàpp ni suñu mhm. sëriñ si mhm. bu ñu génnoon di wax tamit du def wax wax ak askan wi naqarlu li nga xam ne moom moo xew parce que li xew moom kenn mënu ko cautionné nekk jullit wala nga nekk ci beneen diine sax mënoo ko cautionné mën na mën na nekk naqarlu génn naqarlu ñaaw def gi fi am parents yi nekk ak seen doom ñu gën a sensibiliser waat xale yi. Mhm. loolu mën na nekk. Mhm. mais pour jëlee ko fi wala boog pour wax góor jigéen ñu dégg. Mhm. <laughs> non loolu moom yaakaar na ko. bu ñu tee yaakaar nga loolu de. je pense que <laughs> ah. yàlla moo ñu boole. sàkk ñun ñëpp. yàlla bindee la góor wala bindee la jigéen nga di dégg samay moromu jigéen wala sama moromu góor la ànd. lu ñaaw moo ngi noonu te lii même boobu sëriñ si génn wax.

ci loo xamante ne nii peut-être euh, mënu mënuma yàq sama activité mënuma yàq sama vie mën naa dem ànd ak sama copine. Mhm. takk ko kenn du ci xam dara non non ça se passe pas comme ça. Mhm. nit lépp too mhm. derrière feebar yi nga xamante ne mën nga ko si jëlee buñ ko xamoon duñ si mësa mësa mësa mësa mës a dugg gannaaw ba les rapports sexuels euh, on va dire normal. góor ak jigéen ñoo mën a am ay complications ñoo mën a indi ay feebar asantuma la góor ak moroomu góoram. c'est c'est vraiment boo koy xalaat nii sax c'est

Euh, bi yoon aussi ñu demaat final est-ce que sénégalais yi tey waruñu xaar ba nga xamante ni euh, àgg nañ ci final bi ak li ciy jógee ñu soog a jubilé so solo yow. <laughs> non man dama jàpp ni li si démb du day. Mhm. parce que bu doon loolu kese yàlla du benn du bind démb. Mhm. tey ñu ngi sub. Mhm. peut-être deux mille deux am na lu ñu dara mais mën nañoo bañ a dal deux mille vingt te. Sénégalais ku si nekk da nga war a am gëm-gëm fi ni incha allah. fi mm. ñun ñoo ko jël. en plus euh, am na loo nga xamante ne dina euh, dina faral di décourager loo Sénégalais muy ñiy génn di wax. Mm-hmm. Euh, Lions yi duñ dem fii Lions yi duñ yegg dem final. duñ mm. yegg kàddu final loolu noonu loolu baaxul parce que yow Sénégalais la donc. tey ji jàpp naa ne képp kuy sénégalais rek da nga war a ñaan coupe mhm. da nga war a ñaan ndam li ñëw mais pas ngay génn naan euh, coupe bi duñ ko jël. coupe bi mhm. duñ ko lii coupe bi mais est-ce que nga ne coupe bi dinañ ko jël dimanche. <laughs> ci sa a ah. waaw waaw te jàpp naa ne coupe bi dinañ ko jël incha allah. Mhm. foo ko teg.

Mhm. déjà mhm. xam ne yàlla mooy maye ñu ñaan ko tamit mu may ñu te mu doon lu gën ci mhm. parce que nous ki tamit à cause d'être trop pessimiste trop négatif li nga li nga li nga rek c'est ça qui te revient à la figure donc nañ nañ optimistes, optimiste xam ne incha allah dina baax nous. ñaan te aujourd'hui c'est un nouveau jour 2022 c'est une nouvelle année donc l'année 2019 l'année 2020 wone na te la l'année 2019 ça ba léegi du parce que dem la xeexi te yàlla dogal ne amoon ndam. Mm. donc loolu du gàcce te du yàlla ñëpp lay may ndam aussi. voilà loolu la mm. donc du gàcce tamit te même bu nekkoon te

ñu gis Sadio Mané muy wax ne dinañ indi coupe bi yooyu est-ce que ko wala ay montage la wala. <laughs> gëm naa ko. Mhm. parce que nit ku nekk da war a am gëm-gëm sa bopp. Mhm. waa tey jii boo doon def examen. da nga mhm. yàlla may la ko. baax baax parce que foo jullee yaa ngi ñaan yàlla may la ko tam aussi mu nekk lu gëm si yow. donc Sadio dafa nekk loo nga xamante loolu mu gëm la rek. ñaan yàlla may ko coupe bi te incha allah gëm naa ne loolu mooy am. mais aussi na nekk

ñun sabab lu dong la ñuy def dañuy ñaan yàlla may ñëw hmm. mais tey jii dooni par loolu boo ko dee def sax yàlla da lay koñe parce que da lay wane yomboo dara hmm. ñun benn dong lañu mën ay julli nañ nañ julli jàppal seen julli toog ñaan coupe bi ñëw si jàmm ak salaam mais pas bu naan ñu naan euh, dañu war a jël coupe bi baax hmm. ñun duñu yàlla ay nit kese la dañuy ñaan dañuy sabablu donc nañ ñaan yàlla moo mu indi alors euh, est-ce que aujourd'hui Sénégalais ont di wax naan coupe bi dafa par force est-ce que quelque part nous, nous am raison je m'explique euh, parce que tout simplement euh, nationale du Sénégal une équipe de l'Union ñëpp bu ñuy voyager suñu ay moyens du bord la ñuy voyager suñu suñu avion la ñuy voyager euh, prix bi ñu leen aussi suñu suñu xaalis la alors euh, ñaata campagne la ñu amul Ben njëriñ pour le Sénégal je veux dire anti guillemets mm-hmm. donc amuñu Ben trophée mm-hmm. amuñu Ben étoile ci suñu suñu maillot mm-hmm. est-ce que Sénégalais yooyu n'ont pas raison en disant que les coupe bi dañ ko war a par force bon exigence boobu dañ ne dinañ leen ko permettre dinañ leen ko lii mais tamit c'est pas encore une fois ñoom nekk ñi nga xamante ne ñooy nekk ci ci terrain euh, condition yi nga xamante ne ñoom may ñoom lion yi football ñoom ñi nga xamante ne ñooy daj yëf yi ñoom c'est à eux à part yàlla ñoom ñooy acte ñoom ñoom ñooy acteurs yi. Mhm. donc tamit ñooñu suñu exigeant wee trop daf dañuy dañ mën nañ leen tëkkaleel ak ñi nga xamante ne ñu ngi génn. Mhm. Euh, ñi nga xamante ne ñoo ngi woote seen bopp Sénégalais di woote seen bopp ay borom xam-xam.

ba fina jotee ba keneen jëlee mais mhm. moom lañ doon sargal. Mhm. parce que gis nañ li mu joxe yëpp. il a perdu avec la manière. waaye mhm. euh, perdu nañ mais dans la dignité. yàlla bu ñu dal nag yàlla yàlla may ndam bi. amiin ñu mu jig ñu. parce que c'est toute une nation donc nañ ñaan tamit mu jig ñu. alors euh, aujourd'hui euh, euh, ñaari euh, question yoo xam ne c'est un peu compliqué xam naa ku yee ñaar ngir répondre ko quoi donc euh, Aliou Cissé donc bokk ci ci histoire du Sénégal entraîneur yi ñu gën a critiqué ah. Alors aujourd'hui euh, bu faites ni gagné na la coupe on lui ça parce que loolu la ko comme comme en tant que sénégalais ak le peuple sénégalais loolu la ñu bëgg euh, lan mooy nekk sooram ci équipe nationale bu Sénégal est-ce que l'on koy bàyyi mu continuer euh, puisque nous bëri nee nañ lu fi si entraîneur donc amul bon entraîneur bu ko fi mos a def bu dee dafa gagné coupe ndax koy continuer et si jamais vous ko un bu fekkente vous dem nañu ñu nous bi aussi lan continuer continuité à lui si c'est ko ou vous, préférez. ñu <laughs> ah, comme ni la mhm. parce que moom ba mu pour pour l'Orléans, pour yi. Mhm. entraîneur vous bëggoon

mais Sénégal yëpp la ci moom la jublu. parce que tey jii benn joueur bu defoon faute sax. Mhm. non duñ ko duñ joueur bi la. Mhm. entraîneur ah. moo tax ma xam ne si moo tax ma ne yàlla may xolub muy. Ah. aussi mu gën a xam li mhm. am naa xarit bu mag boo xam ne mi ngi ci Wally Seck gën a xam boppam. Ah. il critique trop Aliou Cissé <laughs> xam nga boppam mi ngi ci Wally alors donc bien. Euh, euh, tu partages euh, la même réponse avec moom wala euh, selon yow vous faites ne si jamais euh, affaire yi à on va se débarrasser avec lui, nous xool peut-être sorcier blanc comme gars yi ou koy waxee wala bu fekkente ne aussi gagné na coupe nous continuer avec moom parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. non je trouve que ni

compétence mm-hmm. mm-hmm. te moom mooy recruter mooy sélectionner mm-hmm. moom mooy indi si terrain bi donc moom yaakaar naa ne que il est par contre nag quant à critique yi auto bi ci kanam moom dañuy ko ne pas bi ci ginnaaw. yéen ay fans Aliou Cissé ngeen ça je le comprends seen i propos dafa bokk peuple mm-hmm. mu xam ne rek dafa jiitu te nag euh, nit kenn moomu leen mm-hmm. tamit euh, ñi nga xam ne ñooy commentateur tamit kenn moomu leen su suñ demee def loo xamante ne dalul suñu xel wala loo xamante ne satisfaire ñu mm-hmm. am nañ droit taxaw critiquer Aliou Cissé ça c'est notre droit mais comme taa nag su defee loo xamante ne tamit ñëpp dañ koy rafetlu. Mhm. ñun mën nañ taxaw tamit ne li mu def euh, rafetlu nañ ko. Mhm. alors une dernière question avant de se de se quitter euh, maanaam président Macky Sall bi mu di jox drapeau bi ci euh, salle des banquiers ci palais. Mhm. def leen wax ne leen affaire bi affaire fight la affaire jom la dem wuti ko xam nga muyee le mayoo dafa mel ne affaire boobu <laughs> gars yi dégg nañ ko de tàggul si nopp ku tax de. <laughs> non mais je pense que ça vient d'un encouragement, donc. Mhm. parce que Seigneur, Seigneur, Seigneur, y a et tout. Mhm. et que pour encouragement donc euh, Sénégalais et a mhm. la. même réponse à euh, Fifi hein?

Sénégalais ay nit ñu ñuul mais ñu koy sargal mhm. donc loolu président nekk loo xamante ne rafetlu na ko ñun ñëpp rafetlu nañ ko mhm. ndam li gis nañ ko du ndamu président du ndamu Aliou Cissé suñu ndam li ñun ñëpp mhm. yàlla ñëw jàmm ak salaam bu ko defee daal yëf yi gën a neex parce que bu fi yemoon daal bu neex moom ren moom woyu bu fi yem daal <laughs> ak kaaroo kaar daal très bien oui alors euh, di nga match euh, dimanche bi incha allah wala tu préfères. yow yow yow nga di nga saraan ah. allah bi faamu damaa dabi damaa bàyyi bala ba quatre-vingtième minute. may door a dabi bi ma gisante rek yaakaar am. day donc ñu bàyyi la nga tàggoo ak internet yi. waaw xanaa muy tàggoo boo xamante ne gënaluñu rek parce que bu ñu sañoon gën a ànd ak yéen mais mbirum télé moom moo demee

non bàyyi ma laal. ah Lacoste bi Lacoste bi ah leen jaajëfal euh, mhm. donc euh, cher internaute ñu ngi di gërëm bu baax a baax mu nekkoon seen émission bi nga xam ne moom moo di cey lii ñaari partie lañ ko jagleeloon bu ci njëkk bi moom euh, wàllu ñi nga xam ne mooy ñaari tur yi gis nañu mbir bu doy waar boo xam ne Sénégal yëpp ñoo koy naqarlu ak képp koo xam ne rek jullit nga ak sax benn jullit yaa ngi koy naqarlu bu ñaari nit yoo xam ne fekk nañ leen ci jàkk ñu di séq te nekk ay góor mu nekk mbir bu doy waar euh, indi nañ ci ay éclaircissement ci plateau Thiély beneen mbir bi si des mooy itam euh, Sénégal war na euh, jàkkaarloo bu ci yàlla àndee dimanche incha allah ak équipe bi nga xamante ni moom moo war a nekk Cameroun wala Égypte ñoom ko ci gagné rek dégg ngeen waxtaan yi nga xam ne indi nañ ko ci fii fii ak ki nga xam ne moom moo di Binette ñu leen di gërëm bu baax a baax Cheikh Anta Mat jox rendez-vous allah beneen yoon ci beneen numéro Thiély Thank you.